jërëjëf mbokk yi mu ngi noonu euh, ñu ngi nii nag toog ak euh, Pape Moussa Diop euh, commerçant à Tivaouane tey nag mu am benn mbir boo xam ne daf ko bëgg a fi vraiment ñu bëggoon Pape lan lan mooy lan mooy lan mooy problème problème mooy El ñun dañoo sonn ñun commerçant yi. lan moo leen sonal. mairie moo ñu sonal. parce que c' est la troisième fois su ma juumul lu mel nii di daal ñu leen di woo parce que ñun lépp loo xam ne waxtaan mën na ko indi yaakaar naa ne du ñu takk morso yu xonk di ne ci tali bi mm. tey mairie Tivaouane lu toll ni dëkk bu mel ni Tivaouane ñun ñuy def commerce ñooy fay loyer ñooy fay patente économie dëkk bi ci ñun la aju pour mu jëkkatigu su korite jotee wala tabaski ñu jël foire mu def fi fukki fan ak juróom tey avant korite foire bi nekk ci buntu école 1 def na fi vingt et quelques jours ñu ngi soog a takk bagage yi nii ngay gis soo di nga ko xool ci PC beneen bi mooy les commerçants yi nga xam dëkk ñu Tivaouane bu ñu amee dajalee xaalisu waa Tivaouane nañ ko yóbbu ci seeni i dëkk dañuy ñëw ziar général ziar général ba léegi. ñi ngi fi ñun ñu war a jaay ñoom ñu jël bagage yi tey dëgg la di ko wanteer di ko bazarder parce que fayu ñu courant fayu ñu ndox fayu ñu loyer fay ñu patante ñun ñi nga xam ne nag ñun yooyu yëpp ñun ñoo ko àngu mu metti ci ñun gisuñu sax ñu nu jaay ñu woo maire bi wool secrétaire général municipal bu woo le maire woo les agents ñi nga xam ni séq nañ ko ñoom woo nañ leen mais saa yu leen dañuy yëg ni ñoom affaire bi méttiwu leen parce que ñoom ñun ni muy méttee si ñun yëguñu ko xamuñu lu muy mais ñun ñi nga xam nag ñooy lebi alali jàmbur ñooy dem ci banque yi ñun la ñuy lebal bu tëj jotee te fayu ñun la ñuy tëj ñun ñuy subir conséquences yooyu te ñun maire bi ñun ñooñu war a défendre ñoom ñooñu war a dooleel ñooñu war a soutenir tey soutenir nu nag métti na trop commerçant yi nag ñëpp dañoo ànd dañuy def takk mosoy xonk génn mën leen bala ñoo takk mosoy xonk woote naa ci njëkk bàyyi lan ma def vidéo ci njëkk bu amul nag ci njëkk saa yoon woote naan non jox nañ agent yi neneen gi dem na ba ca ñi nga xam ni ñoom ñooy jaay foofu ñi ngi sosal sax municipalité bi di wax ne da xale yi fa ñëw dañ leen di proposer ay cinq cent mille dañ leen fay quatre-vingt pour mën a toog bu ñu takkee bagage ba cinq heures ñu tas ko Tivaouane gépp daw fàq dem fa dëgg la Tivaouane war na a jënd mais ñun ñii war a jëndee nag rek mooy li ñu metti ñu koy dénoncé di wax ni bëggatul moom ba ñoo bëgg ñu jóge fi le plus rapidement possible beneen bi mooy Tivaouane ku fi ñëwati ziar général trois jours après ziar général ziar baxa ziar koskaas non say bagage nga dem bàyyi ñun ñii ci dëkk bi di fay patente di fay loyer di doxal économie dëkk bi ñu yor commerce dëkk bi loolu mooy dëgg indi fayoo dara. xolo foire bi xolo bi fi am foire boo xam ne kay kuy jaay eh, lam fëgg jaay dëkkuñu fi ñëw jaay waat Tivaouane yëpp ñun ñi fi am ay place ba pare am xam nga nit ñi bëgg lu ñu sànni ci suuf ay mbalit la ñu bëgg léegi ñoom ñun ñu def suñu xaaj di ko def noonu man sama place dama koy vitré def ci aluminium def ci climatiseur di jaay lu baax te loolu nag Diop si moo ñu war a jàppale te Diop si nag mooy conseil municipal bi. jërëjëf.